ndeysaan mbokki amateur yi combat ngoog combat ngi noonu ci biir combat Jacob Baldé ak Tony Signor Jacob Baldé Jacob Baldé ak Tony Signor combat ngoog ñii bu ci arène lamb boolewu leen ndax Jacob Baldé moo raw Tony Junior ci lamb bu dee lutte avec frappe waaye bu dee ci lutte sans frappe ñoom ñaar ñoo bokk même catégorie attention Tony Junior Jacob da koy mboot Jacob da koy mboot waaye attention Jacob Jacob eh Tony war na ko ndombo Tony war na ko ndombo da koy daan Tony war na ko ndombo da koy daan Tony war na ko ndombo da koy daan eh Jacob balaa ngaa xale bii xale bii am na loo xam ne boo ko mayee ay waay ay waay Tony daan na Jacob Baldé Tony Junior daan na Jacob Baldé allahu akbar daan na Jacob Baldé Tony ma leen wax sànq bu dee ci lutte avec frappe ñaar ñi duñu ay classe bokkuñu sax école waaye gis ngeen ndeysaan ci lutte sans frappe fii ay ndaanaan képp a fi tase